Présentation des équipes. waaw Kaolack nonu, noonu ndeysaan Radiakhé 120 kilo, Kabongane 100 kilo, Batara 86 bin Diap 76 Adama 66 fatiga Fatick ñu Général Malika Famouda Pasul Mansour Tine Langbara Kado ak Seexa Kado Jurbel, waaw Paul Mante Abou Assef Ndig Mama secteur ne Galangué Pape Ngom Dakar ndeysaan wala boobu Sédhiou la bulldozer Malika Cuuna Boy Caalaan et autres waaw Matam Modou Pa Daali moo fa nekk waaw waaw Thiès ñoo fa ne xam ne a ngi noonu Toubacouta Robert Ndiaye 2 waaye xam ne naa fa monument Ndianda Rose Jordan Sow Mali ñu ñëw fii ci waaw équipe yaa ngi noonu sama gars yi yeneen équipe sori Diourbel maama mu Apo Asemi